est-ce que da ngeen di téye kii bi temps kii ñoom. mais loolu laa bëggoon dugg rek la nii gis naa troisième bii léegi arbitre bi ne hors jeu dama ñu dóor ay cinq comme quatre quatre quatre différence lañ ñu andi différence de quatre mais comme dugal nañ benn yàq score bi fa ñu dóor cinq un. yaakaar nga ni seen score bi seen seen match d'entraînement bu keroog bi moo def wala yéen liggéey. non dañ préparé dañu préparé gars yi. andi fi ñu leen neex def lu leen neex mais daal dañuy gérer rek.